gaay maa ngi leen di euh, ziar euh, di kontaan ci waxtaan ak yéen ci benn live donc on attend les autres gars yi ñu partage live bi et que aussi ñu euh, def ay cœur aimé live bi aussi pour éviter les signalements mais aussi éviter les sabotages donc de l'autre camp comme ñoom temps yi neexuñ deret <laughs> comme ñoom temps yi moom waa waa ñàkk jàmm lañ ñu ngi leen di bu wér a wér di kontaan ci dajeeg yéen su benn format boo xam ne xëy nañ amuñu habitude di ci communiquer wee mais jàpp nañu ne les enjeux de l'heure dafay exiger ñuy toog waxtaan ci ni mu gën a yaatoo nga xam ne dañuy sottante xalaat d'une part euh, mais d'autre part euh, dañuy waxtaanee mbir yi nga xam ne échange day doon donc effectivement dinaa tàmbali par une discussion boo xamante ne euh, dina exposé situation politique gu réew mi euh, bu ñu jógee ci situation politique gu réew mi aussi euh, dinañ waxtaanee euh, lan moo ci taxawaayu Pastef mais avant taxawaayu Pastef lan mooy stratégie régime bi parce que boo jàkkaarloog benn camp aussi il faut nga xam moom lan la bëgg pour nga bañ ko fekk ci loolu mais aussi yow lan moo war doon sa taxawaay te loolu nag dañ koy analyser à l'aune de fi ñu jëm. te mooy l'élection présidentielle du 25 février 2024 donc euh, maa ngi kontaan bu baax a baax ci retrouver leen euh, je pense que y a monde donc euh, beaucoup de gens sont la ñu ngi jéggalu sax ci jour ouvrable bi mu nekk mais on pense que moom là moom on est on est aujourd'hui on est aujourd'hui obligé de faire de la politique de façon permanente donc loolu moo waral live bi en jour ouvrable et on espère que liñ ciy waxtaanee dina na lu amal njëriñ euh, sénégalais yi bu baax a baax a baax a baax euh, maintenant euh, liñ bëgg a waxtaanee mooy élection yi ñu jëm élection présidentielle la élection présidentielle nag suñ ciy jublu il faut que ñu natt ñun lan nañu bëgg il faut que ñu natt suñuy adversaire aussi lan nañu bëgg donc loolu nag suñ ko bëggee on va parler de dossier judiciaire donc on va parler de, du conseil constitutionnel ak recevabilité candidature yi mais dinañu wax ci li nga xam ne démb moo défrayer un peu l'actualité la chronique muy l'affaire Mame Mbaye Niang l'affaire Mame Mbaye Niang pour moi très important fi ñu jëm l'affaire Mame Mbaye euh, ñu waxtaanee ko xool lan la ci régime bi bëgg lan moo mën a nekk ak lan moo mënta nekk et je pense que démb def naa ci benn texte sur ma page Facebook donc pour aller rapidement dañuy def l'exposé du contexte ci ban contexte la ñu nekk ñu ngi jëm ci élection présidentielle Sénégal nag booy analyser le champ politique dafa am lu ñu wax bipolarisation c'est-à-dire ñaari pôle ñoo fi nekk ñaari pôle il y la présence de deux forces principal première force bi mooy force Pastef et ses alliés deuxième force bi mooy force wu Benno Bokk Yaakaar nga xam ne c'est un partie au pouvoir bu am un candidat boo xam ne ci parti boobu lay jógee donc quel qu'on le veuille ou pas force la c'est une force politique ñaari force yooyu noonu dañuy natt ku ci nekk sa évolution dañuy natt ku nekk sa évolution ñi jël force Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar bu ngeen xoolee seen courbe électorale lu ñuy wax courbe électoral dafa nekk en décroissance maanaam ñoom dañuy wàcc présidentielle 2019 Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi amoon deux millions cinq cent cinquante cinq mille voix loolu mooy tolloog cinquante huit pour cent des suffrages mais législative yi weesu ak mobilisation bu ñu def yëpp ak xaalis bi ñu tuur yëpp ci Sénégal benn bokk yaakaar li ñu am ci voix un million cinq cent dix huit mille voix la million cinq cent dix huit mille voix loolu mooy benn bokk yaakaar ci ñetti at maanaam diggante février deux mille dix neuf ak juillet deux mille vingt deux maanaam ci ñetti at perte nañu un million de voix. loolu mooy courbe bu bu benn bokk yaakaar te ku xam politique dëgg-dëgg di nga xam ne fi ñu jëm benn bokk yaakaar les 500000 voix aussi da koy pertaat donc le candidat de la coalition benn bokk yaakaar ci élection yi ñu jëm mënta dépasser un million de voix su ko dépassé rek ce sera exceptionnel un million de voix je dis bien un million de voix ñi fàttaliku ne parti au pouvoir dafa am lu ñu wax l'usure du pouvoir. maanaam plus ngay dem ci pouvoir plus nit ñi di gën a doyal ci yow surtout nag bu fekkee liggéeyoo dañu jël exemple régime Abdou Diouf Abdou Diouf en 1983 mi ngi amoon 83 pour cent des voix 88 10 points wàññeeku muy 73 pour cent ñu ñëw élection 93 20 points wàññeeku muy 53 pour cent ci 5 ñu dem élection législative 98 Abdou Diouf am 50 pour cent. des suffrages bu ñu boolee voix yëpp ñu dem élection ab Abdou Diouf am 41 pour cent donc parti au pouvoir dafa am l'usure du pouvoir maanaam plus ñi dem plus voix am di wàññeeku loolu mooy li li nga xam ne mooy mooy natt bi te Macky Sall mayul son candidat mu am espace d'expression parce que daf koy daf kay daf koy daf koy daf koy donnuloo ay passif tey Macky Sall il a ouvert beaucoup beaucoup de fronts ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso yi ñun on a ñun GPS ak FRAPP dañu am lu ñu lancé sous la tutelle du parti plateforme chemin de la libération ñu dem di visiter les familles des détenus politiques mais ñi doon dem yëpp ci ay responsables nationaux yu Pastef ak ay responsables locaux ay députés ay coordinateur ay membres du bureau politique ay membre de la GPS ay membre de FRAPP li ñu lay wax mooy famille yëpp yëpp da nga ciy gis ñoo xam ne pare woon nañ pour voter Macky Sall ils son pas des pro Pastef mais ñëpp bàyyi nañ régime Macky Sall donc tey le régime des libertés publique au Sénégal restriction bi ci am TikTok bi ñu tëjoon droit de manifestation bi nga xam ne c'est devenu bafoué définitivement au Sénégal ak aussi conjoncture économique bu difficile bi nga xam ne ñun ñëpp xam nañ ne courant ni mu yokkee c'est de façon drastique ñun ñëpp xam nañ ne aussi sur le plan social dëkk bi dafa jafe tey gis ngeen jeunes yi ñu ngi jël gaal bi gaal yi donc loolu li muy wane mooy en réalité seen situation dafay gën a métti maanaam ñoom sur le plan électoral dañuy gën a impopulaire donc élection yi dañ koy perte léegi ñun ñu natt suñu bopp ñun waa Pastef ñun 2017 mooy première élection bu ñu participer muy élection législative su la bannière de la coalition Ndawi Askan bi ñu am 1,27 pour cent des voix maanaam cent 440 voix mooy plus fort reste ci la président Ousmane Sonko nekkee député bi ñu ñëwee euh, présidentielle 2019 ñu am 15,27 pour cent muy tolloog 687 000 voix diggante présidentielle 2019 ba législative 2022 ñu nag suñuy alliés. parce que c'est vrai que am na yeneen parti yu ñu allié woon ak ci opposition bi ay parti yu mag sax am nañu un million cinq cent trente neuf mille voix un million cinq cent quarante deux mille sax mooy mooy chiffre bi te ñëpp xam nañ ne dynamique Pastef moo tax ñu gañee dakaar tout la région de Dakar xool leen tout la région de Dakar Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque Kër Massar cinq départements opposition bi gagné lépp te ça c'est la dynamique Pastef Le département de Mbacké, c'est la dynamique passive. La région de Ziguinchor, c'est la dynamique passive. Le département de Sédhiou, le département de Goudomp, c'est la dynamique passive. Kon Pastef et ses alliés aujourd'hui bu ñu leen di natt lu mu néew néew bu ñu jëlee joxe PDS seeni voix ak taxawook ñeneen ak ñeneen lu mu bon bon Pastef war na am 40 pour cent des suffrages te loolu mooy 2022 kon ñun dañuy yéeg ñoom ñuy wàcc li tax ma tàmbalee lii mooy ñu comprendre lan moo tax régime bi di acharné wu pour liquider la président Ousmane Sonko pour génnee ko ci champ politique bi c'est extrêmement important parce que Macky Sall bi ñu jógee élection législative 2022 mais dafay toog mu jàngat c'est un scientifique il est ingénieur day toog mu jàngat ni ah situation bi nii la demee man léegi lan laa war a def il a décidé de ne pas combattre Pastef de façon conventionnelle et loyale maanaam jaarale ko ci ay charte maanaam dem élection compétir fexe ba tànn un bon candidat fexe ba candidat mu liggéey ci ci popularité fexe ba li ko fi dese ci un an et yooyu mu liggéey loo xam ne sénégalais yi dina leen rassuré waat non deful loolu dafa ne ñii damay ñëw dal seen kaw acharné wu parce que loolu la xam ce n'est pas un stratège politique lu mu xam mooy jaay doole màbb toroxal ak dal ci kaw nit ñi si loolu nag dafa jël décision combattre ñu à deux niveaux si ñaari volet bu njëkk bi mooy le vole judiciaire bi ci tegu mooy le volet politique le vole judiciaire mooy lan il faut mu créer ñu ay dossiers yoo xam ne daf ñu bëgg a tere ñu bokk tere ñu nekk candidat sur la base de l'inéligibilité maanaam fexe ba suñu candidat du mën a nekk sax électeur bay nekk candidat te loolu mu ngi ko basé ci ñaari dossier affaire Mame suñuy député ci marathon budgétaire en novembre 2022 génn wax Mame Mbaye ko dossier Prodac notamment ñu mel ni ay Abass ñu mu génn weddi ci lu mel noonu ñu ridiculiser ko à l'Assemblée le président Ousmane Sonko di commenter loolu ci lu matul une minute ci conférence de leaders bu yeewi askan wi conférence de presse mu génn ñu jug dem dal ci kawam directement daal di annoncer une plainte beneen bi mooy dossier boo xam ne depuis mars 2021 la ko Macky Sall yëkkati woon Sénégalais yi xeex ak moom résister donc après législative bi mu jël décision ne day réactiver dossier bi je vous rappelle gars yi que le 8 mars 2021 la ñu. defoon Sonko sous contrôle judiciaire le président Ousmane Sonko kañ nañ njëkkatiwaat dossier bi novembre 2022 c'est-à-dire diggante mars 2021 ba élection législative juillet 2022 posé wuñu benn acte d'instruction woowuñ kenn déglu ko du Adji Sarr du Ousmane Sonko du témoins yi du Ndeye Khady Ndiaye du keneen ak keneen du capitaine Touré du Mamour Diallo du keneen ak keneen kañ nañ tàmbaliwaat les dossiers d'instruction après les législatives de mooy ma Sall boobu la jël décision yëkkatiwaat dossier boobu dinaa ñëw nag ci volet judiciaire boobu noonu lan la jur ak ñun lan lañ war a def parce que loolu en réalité mooy substance waxtaan bi mais il faut que ñu tàmbalee ci exposé contextuel bi li ci tegu mooy le vole politique le volet politique nag ñoom ñetti stratégie nañu amoon mooy diaboliser ñu isoler ñu diaboliser ñu isoler ñu li ci mujj mooy dissoudre ñu jéem nañu ñu à chaque fois Ousmane Sonko day xeex tarixa yi Ousmane Sonko ay financement occulte Ousmane Sonko salafiste la Pastef ay immature nañ loolu mujju naax saay parce que sénégalais tey nañ ñu gën a jox bopp donc diabolisation bi jàllul fenn li ci des mooy lan isolement qu'est-ce que Macky Sall fait Macky Sall dafa bàyyi ba Korité au mois d'avril 2023 mu menacé Sonko ba pare woote dialogue loolu mooy man maa ngi woote dialogue mais c'est un dialogue taillé sur mesure pour am ñu bokk am ñu ma xañ ñu bokk et condition wu bokk nag mooy isoler le président Ousmane Sonko gars yi dama leen jox une information de taille ce n'est même pas une révélation d'ailleurs mais ñu bëri duñ ci bàyyi xel est-ce que xam ngeen ne ci mois deux mille vingt depuis sax deux mille vingt deux suñuy député ñun sous l'initiative de Abbas Fall ensuite de Guy Marius Sagna déposé woon nañ ay proposition de loi pour ñu modifier les dispositions de l'article L57 du code électoral te boobu Yewwi ak Wallu ñu ngi fa bu ñu boole woon seen doole loolu lay jàll te loolu bu jàlloon à l'Assemblée nationale Khalifa Sall day nekk candidat Karim Wade dafay nekk candidat Ousmane Sonko dafay nekk candidat parce que condition pour nekk candidat ci élection présidentielle nekk électeur dootu dootu ci bokk nga nekk yow électeur yow nga war a vote voter dootul nekkati condition pour nga nekk candidat parce que loolu moo amul ci loi bi Macky Sall moo dugal la notion de tout sénégalais électeur ci élection wu 2018 donc juste pour diir que lan moo tax yeneen alliés yi muy yeewee ak nga xam ne local ak législative ku ci nekk da nga doon daw ci ginnaaw président Ousmane Sonko pour bëgg ñu def la ci liste lan moo tax ñooñu bàyyi loolu jàll. mais il faut que ñu dem ci dialogue pour mën a nangoo nekk candidat loolu lu muy signifier c'est simple mooy condition wu bi mooy isoler le président Ousmane Sonko et je rappelle encore qu'au mois d'août bi ñu d'accordee ci ko dialogue bi dil seen dil ba pare bi ñu ñëwee indi projet de loi bi gouvernement bi indi ministre de l'intérieur Antoine Diome ci jamono jooju di ko soutenir au mois d'août est-ce que xam ngeen ni ki ñuy wax Umar Cissé muy député bu Yewwi nekk maire de la ville de Rufisque bokk taxaw dafa proposé woon benn amendement maanaam ñi modifier loi bi pour L57 boobu noonu nekk ci code électoral bi ñu dindi ko nga xam ne ñëpp mën na nekk candidat te loolu terewut Khalifa Sall ak Karim li ñu waxtaanee ci dialogue bi ñu respecté ko député yu yeew yu taxaw ñoo njëkk jug génn si saalu assemblée nationale bi maire Umar Cissé bi nga xam ne si ñoom la bokk. kon l'isolement politique a été un choix orchestré par une certaine classe politique et il faut le dire donc l'isolement a été voulu l'isolement a été recherché mais malheureusement ñi ñu bëggoon isole tey ñun ñoo isolé wala ñoom ñoo isolé wu gisoo leen démb TFM un maire le maire de la ville de Dakar moom ba léegi moom mi depuis loo xam ne mois de mais la posé acte bi le 8 mai ba léegi muy justifié ci loolu muy justifié wu ci loolu gis ngeen fi ay candidats yoo xam ne fu ñu dem taxaw sénégalais yi ne da ngeen a war soo ko finalement ñoom classe politique bu ñoo isolé wu. kan la sénégalais yi di woy ci stade yi kan la nit ñi jox bopp ba bu ñu nee cour suprême dëggal na décision Ziguinchor fekk erreur la woon rumeur la woon. fake news la woon même pas cinq minutes dëkk bi yëpp di yëngatu ñi doon añ arrêté seen añ ñi doon jaay arrêté seen seen jaay ñu doon liggéey arrêté seen liggéey ñëpp di génn di yuuxu di fecc donc l'isolement de Sonko jàllut léegi l'isolement aussi la moo ci tegu mooy la dissolution c'est pas pour rien Macky Sall dissolution Pastef terewu ko taxul moom li mu bëgg ci Pastef ci côté tere ko mu nekk candidat moom ak Ousmane Sonko ak ñeneen mais dissolution mënu ko ko may parce que ku nekk parti politique mën na la porter tey les candidats à la candidature yi passif choisir notamment Diomaye fay bi ñu choisir pour mu dem parrainage citoyen kenn mënu ko tere nekk candidat parce que est porté par une coalition de partis politiques il peut être porté par un autre parti politique mais pourquoi Macky Sall malgré que tëj na président Ousmane Sonko génne woon na ko ci liste électorale yi mu obligé dissoudre Pastef c'est une stratégie politique stratégie politique boo xam ne il fallait ñu tere ñu animer le champ politique mais il faut que ñu sortir ñu génnee ñu duy débat médiatique léegi dama leen di laaj yéen aujourd'hui qui fait l'actualité politique kan mooy dominer dans les médias tey bu ñu xëyee suba ba ngoon ci kan nañuy bind dem leen ngeen jël titre journaux yi tey lépp président Ousmane Sonko la loolu mooy sur le plan national sur le plan international bi ñu nee réintégré nañ Ousmane Sonko ci liste électorale yi kan ngeen gis mu bindul ci leader politique France ay Jean-Luc Mélenchon ay Succès Masra fii Mali bi ma nekk toute la sous-région ouest africaine ñëpp di wax ñëpp di yuuxu ngeen gis sénat américain démb ay sénateur ñaari sénateur américain bind résolution saisir le sénat américain demandé leen pour Sénégal nañ ko exiger mu organiser ay élections yu inclusive yu transparente yu démocratique amul benn plateau boo xam ne boo invité wul Pastef tam tu vas parler de Pastef c'est Pastef qui occupe l'actualité politique donc finalement qu'est-ce que l'isolement a fait Macky Sall daf ñu tere woon jot sax fiche de parrainage pour bañ ñu animer suñu parti durant les trois dernières semaines du parrainage foo dem jigéen ñi mag ñu ndaw ñi xale yi tool monde di wër di parrainer donc l'isolement sur le plan politique n'a pas marché ça n'a pas fonctionné terewuñu ñu animer suñuy parti loolu mooy l'échec de la stratégie politique maintenant le volet judiciaire de la stratégie nag mooy li ma njëkkoon wax loolu moo nekk di daw ba léegi te ba léegi dafay échouer ci loolu ñoom procès Adji Sarr bi ñu yëgee ne Ousmane Sonko du ñëw wuy si leen yoon wax mooy Ousmane Sonko buñ ko buñ ko convoqué ci interrogatoire bi jiitu audience bi dafa war a présenter wu ogref sa ça ça obligatoire su ñëwul dañ war a def mandat d'amener maintenant nag suñ tijjee les débats comme ni ma ko yàgg waxee su ko neexee mu bañ a ñëw ñu juge ko par contumace Ousmane Sonko ñëwut ñi doon wax force à la force restera à la loi kenn demul jëm ko jëli xam nga loolu li muy signifié mooy dañoo dégg contumace rek. Ousmane Sonko jox leen benn benn once rek ñu daw langaamu ci matt ci mbir mi fekk li ñuy matt tooke la contumace boobu noonu nag ñu ñu gis ci code électoral bi ne ceux qui sont condamnés wala ceux qui sont en état de contumace ñu ne kon Ousmane Sonko dañ koy rendi parce que sera radié des listes électorales ça c'est l'article L29 ñu daal di statuer par contem par contumace à son égard le 1 juin contumace boobu nag ñu bañ ko ko notifier bañ demee ba bañ ko jox liste mu mu jot ci liste électorale ci fichier bi mu jot mu bañ a jot ci fiche de parrainage am qu'est-ce qui s'est passé saisir tribunal d'instance bu Ziguinchor le juge si fay delloo ñu ci liste électorale yi nga bañ def cassation devant la cour suprême cour suprême euh, daal di casse décision bi jox tribunal d'instance hors classe bu Dakar mu confirmer mbir mi mais li ci bees mooy mu fàtt fépp mu ñëw sur la forme ni ñu yëgalee Ousmane ko mu ne jaarul yoon parce que boo koy yëgal moom ci résidence am nga war a dem te sa résidence ordinaire mooy tribunal d'instance bu Ziguinchor en matière électorale wala nga fekk ko euh, fi nga xam ne mooy maison d'arrêt bu ko Sébikotane defuñu loolu kon yéen notification bi jaarul yoon kon les délais ont commencé à courir ginnaaw bi mu ko yëgee. te moom journal yor-yor la ko yëgee c'est comme ça que ça s'est passé ba pare dugg ci fond wu contimance bi ne leen Ousmane Sonko de lors que jàpp ngeen ko l'anéantissement est de plein droit soxlawul woon sax muy def acte d'acquiescement amul ay dañ koo jàpp pour lii amul dañ ko jàpp pour lële Ismaïla Madior Fall bi doon wër ci télé di wax yépp li mu doon wax yoon wane ne dara dara dara amu si donc qu'est-ce qui reste mooy dossier Mame Mbaye Niang loolu moo tax ñu war a taxaw nag ñu déglu bu baax ci dossier boobu ñu waxtaan suñu biir dossier boobu buñ ko yëkkatiwaatee c'est parce que dañoo ñàkk pexe gars yi on tient le bon goût bu fekkoon ne bañ bi ñuy bañ ne duñ exécuter décision bi ñu am tribunal d'instance hors classe bu Dakar bu demandé nañu réintégrer Ousmane ci liste électorale bu fekkoon ne loolu kase dina doy pour ñoom Ousmane Sonko dossier matul kon bu déposé conseil constitutionnel dañuy rendre sa candidature irrecevable konoon du ñu soxla dossier yëkkatiwaat dossier Mame Mbaye Niang le simple fait yëkkatiwaat dossier bi gars yi lenn rek lay renseigner mooy Ousmane Sonko bu déposé candidature am avec signature ay député ginnaaw bi mu constaté par huissier nga xam ne c'est un officier public lu mu bind dañuy jàpp ne noonu la demee jusqu'à inscription de faux kooku. loolu bu ko yóbbee ci kanamu conseil constitutionnel conseil constitutionnel da day nangu candidature am parce que mënut a weddi boppam te loolu jurisprudence su conseil constitutionnel moo ko àtte woon le 15 avril 1998 dinaa ci ñëw loolu dinaa ci ñëw ci kanam sur la responsabilité du conseil constitutionnel face à l'histoire donc ki daan utiliser fetel su jékki-jékkee commencé sànni xeer parce que amatul ay balu fetel c'est aussi simple wala fetalam dafa yàqu donc Macky Sall bu yëkkatiwaatee dossier Mame Mbaye Niang gars yi c'est parce que notre candidature reste intacte et Ousmane Sonko reste plus que jamais éligible loolu moom dama bëgg ñun ñëpp ñu tombe ci d'accord Ousmane Sonko reste éligible et notre candidature reste intacte loolu moo tax Macky Sall yëkkatiwaat dossier Mame Mbaye Niang boobu nag. dafa am erreur boo xam ne ñun patriotes yi waruñu ko commettre mooy le simple fait ñu yëkkati ko rek warul tax ñun ñu jug jël dossier bi mu occuper notre centre d'action mu nekk suñu centre de gravité mu nekk suñu priorité communicationnelle non li ñu war a def mooy ci li ñu concentré wu sur le plan politique ñu taxaw ci te dinaa ci ñëw ci fin bi mais tamit du ñu bàyyi ñoom ñu jël seeni chroniqueur seeni journaliste ak ñi faree ci APR dem ci média yi di gëmloo sénégalais yi ne dossier boobu moom bu dañ koy àtte da dañuy confirmer li amoon cour d'appel te bu ñu ko confirmer Ousmane Sonko dootul bokkati loolu aussi on peut pas laisser tomber ça donc il faut créer des contre-arguments pour leeral ne li ñuy wax dara du ci dëgg te dinaa ci ñëw donc l'exercice bii ñu def nii objectif bi nekkul pour topp leen ci ñoom loolu nekk le centre de l'actualité politique no l'objectif c'est bañ ñoom ñu dugal ci conscience patriote yi ne non Mame Mbaye Niang dañ koy confirmer et buñ ko confirmer Ousmane Sonko dootul bokkul ci liste électorale yi loolu moo waral ngeen gis seen acteur boobu nga xam ne ci complot bi la bokk te ma am gàcce ci tuddu turam mais damay tudd turam pour ngeen leeral muy Barthélémy Toye Dias maire de Dakar ngeen gis ko dem mu dem ci télé yi ngeen gis ñu enrôler dossier pour wane ne pour bañ ñun ñi ne Ousmane Sonko dossier kañ la ñëw Cour suprême xanaa du mois de de juillet ñu ne noo kon par parloo dafa am parce que Barthélemy Diaz la dossier am jiitu woon foofu donc moo tax ñu enrôler dossier Mame Mbaye Barthélemy Diaz avant dossier Ousmane Sonko moom mu dem ci média yi di ñu enfoncé gis ngeen démb il a fait beaucoup de temps pour démontrer ne Ousmane Sonko il est il a tout fait pour insister sur le fait que dossier Mame Mbaye Niang dañu ci condamné loo xam ne dara du ci dëgg mais tey ñu xëy ngeen demee ngeen seetaan info du matin bu TFM di ngeen gis seen rubrique bu ñuy wax ak ci commenté am na ay journalistes yi fa taxaw ñu wax ne affaire boobu affaire privée la ba pare taxaw ci ne. Mame moo defoon appel procureur deful woon appel gars yi loolu c'est faux c'est archi faux le parquet a fait appel su fekkoon ne Mame Mbaye kese moo def appel kon kenn du revenir sur l'action publique parce que partie civile amul capacité pour def appel ci liñ la condamné est-ce que deux mois la woon ñu yokk ko ba six mois partie civile mënu def appel ci loolu partie civile li mu xam mooy man Mame Mbaye Niang deux cent millions lañ ma condamné liñ ma jox liñ ma lañ ma jox ci dommage intérêt liñ ma jox dafa tuuti nañ ma alloué lu ko ëpp la partie civile ne peut faire appel que sur ses intérêts la partie civile ne peut faire appel que sur ses intérêts su fekkee pet bi dañ ko jëlee deux mois yóbbu ko six mois c'est parce que parquet moo def appel sénégalais yëpp nañ dellu xool actualité le parquet avait fait appel ngeen xëy tey gis TFM ay nit taxaw fa ne le parquet n'a pas fait appel ne affaire bi affaire privée la du dëgg parce que bu ñu nee parquet dafa def appel rek mooy ministre de la justice la Macky jox instruction mu jox instruction procureur général mu jox instruction procureur de la république Abdou Karim Diop pour mu def appel kon dossier boobu lépp lu ciy xew état du Sénégal moo nekk derrière loolu nañ doon wax ci dossier Adji sar c'est une affaire purement privée fu mu mujjee état buy mobiliser ay avocat di leen teg ci avion ñuy dem ba Abuja Nigéria dem Ziguinchor dem Cour suprême dem tribunal d'instance hors classe de Dakar ñi leen di fay ay xaalisu Sénégal pour Ousmane Sonko bu mu nekk ci liste yi finalement les masques ont tombé sont tombés donc ñëpp xam nañu ne état du Sénégal moo nekk derrière léegi dossier Mame Mbaye dama bëgg ñu taxaw ñu waxtaan si ci lu gàtt d'abord gars yi dama bëgg ñu def distinction maanaam ñu ràññale ñaar yii ñaar yi may wax na mu bëgg ñu ràññale ko nañu ràññale dossier bi ñu war a àtte cour suprême ak buñ ko àttee conséquences yi ciy jugee ci lu jëm ci éligibilité Ousmane Sonko maanaam candidature ndax ñaar yi du benn te confusion de genre aussi mënta nekk cour suprême le 4 janvier warul àtte Ousmane Sonko ba xam candidat la war a nekk waaw wala déet. est-ce que Ousmane Sonko mun ci liste électorale yi wala nekku ci loolu cour suprême du ko àtte loolu conséquence lu cour suprême di àtte lay doon cour suprême xam nga la lay àtte avocat wu président Ousmane Sonko dañoo contester décision bi cour d'appel rendre ne Ousmane Sonko dañ ko tëj six mois avec sursis teg ci loosam dommage et yu toll ci deux cent millions yu war a fay amende retenir ne moom il est coupable d'injure et de diffamation cour suprême day àtte est-ce que loolu dañ koy dëggal wala dañuy casser décision bi pour jox beneen cour d'appel pour mu àtte le dossier il est pénal c'est pas un dossier d'éligibilité kon bu ngeen gisee presse bi yëpp naan Ousmane Sonko rëccul fii état bi la doon denc dootul nekkati candidat loolu effet yi la waa léegi dama leen laaj lii ku ko def dañuy dagg sa bopp wala lii ku ko def doo nekk candidat wala lii ku ko def bañ condamné la dootoo nekkati candidat waa léegi yow mi defut lan ngay tiit est-ce que président Ousmane Sonko dafa sosal Mame Mbaye Niang est-ce que yéen domaine agricole communautaire yi ñu waxoon ne war na créer plus de cent mille emplois Sénégal yéen da ngeen xam benn nit bu xam benn nit bu xam beneen nit buy liggéey ci domaine agricole communautaire yi amul est-ce que Mame Mbaye xaalis bi ñu defoon ci dag yi pour mu créer richesse ci réew mi gis nañ ne Prodac mi ngi dox ba léegi wala Prodac doxatul loolu mooy la substance donc kon distinction boobu na jiitu kon bu kenn insister ci communication bi ci Ousmane Sonko buñ ko condamné day bokk du bokk loolu débat bi débat bi mooy kenn mënu ko condamné waat maanaam kenn mënut a confort confirmer arrêt bi cour d'appel rendroon le 8 mai 2023 euh, ma ñëwaat nag ci. jaar-jaaru dossier boobu ma da ma ñëw démontrer leen ne Ousmane Sonko kenn mënu ko confirmer condamnation bi mais Cour suprême sax mënta àtte le 4 janvier. Cour suprême du àtte le 4 janvier te mënta àtte le 4 janvier parce que stratégie régime bi mooy xam nañ ne conseil constitutionnel le 26 décembre au plus tard Ousmane Sonko dina fa déposer dossier de candidature am entre le 27 et le 28 conseil constitutionnel dina def tirage au sort pour xam. rang wu dépôt wu yi bu ñu paree ci loolu mu def vérification ci kan moo baaxle parrainage kan moo baaxle wul parrainage su ñu demee vers le 9 le 10 janvier mu tàmbali nag contrôler dossier de candidature yi est-ce que baax na est-ce que candidat yi am nañ nationalité sénégalaise exclusive est-ce que amul ku ci ëppale 75 ans est-ce que am nañ moins de 35 ans est-ce ngi ci liste électorale yi et dañu bëgg nag balaa loolu di am le 4 janvier. ñu rendi mbir yi mu jeex parquet général jël affaire bi transmettre ministre de la justice ministre de la justice transmettre euh, ministre de l' ñu ne raje nañ ko ci liste électorale yi conseil constitutionnel yóbbul ko kayit boobu noonu mu mu daal ne Ousmane Sonko nekkatul candidat comme ni ñu defoon ci Khalifa Sall en 2019 gars yi je vous dis que loolu mënul nekk ci kaaw Ousmane Sonko je commence par vous rappeler procédure bi nan la demee woon Ousmane Sonko bi mu ñëwee première instance dañ ko condamné par le tribunal de grande instance à deux mois avec sursis mu war a fay aussi Mame Mbaye Niang ay dommage de deux cent millions mais comme ñetti infraction yi nañ ko doon toppee muy dañ ne dafa def faux et usage de faux dans un document administratif dafa def diffamation maanaam dafa sos dafa def injure maanaam dafa saaga Mame Mbaye Niang Mame Mbaye bii dem ci télé naan Ousmane Sonko mooy dem ci jacuzzi yi mooy caaxaan moom moom saaga fu Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo ko saaga quoi yéen Sénégalais yi xam ngeen luy saaga mais nee nañ dañoo saaga Ousmane Sonko loolu la parquet doon toppee Ousmane Sonko. finalement tribunal de grande instance daf ko setal ci saaga mu ne amut mu ne Ousmane Sonko deful foo ci këyit benn infraction nañ ko mun daanee muy diffamation mais deux mois avec sursis nañ ko tëjee bu ngeen fàttalikoo ci jamono jooju bindoon naa sama page ni lii mënut a tere Ousmane Sonko nekk ci euh, maanaam ba nekk candidat donc loolu moom c'était clair parquet def appel Mame Mbaye Niang def appel ñu enrôlé affaire bi le 17 avril après ñu renvoyé ko au 8 mai le 8 mai ñëw jugé cour d'appel daal di infirmer partiellement le jugement de la du tribunal de grande instance de Dakar maanaam mu am lu mu ci dindi mais am lu mu ci confirmé lu mu confirmé mooy Ousmane Sonko dañ koy seetal ci faux et usage de faux dañ koy condamné ci diffamation mais daal di ci teg na nag injure dafa am il est coupable d'injure saaga na Mame Mbaye Niang juge cour d'appel yi ñoo def loolu. ñoom Mamadou Cissé Fall ak Ousmane Gueye bi ñu waxee loolu ñu daal di yokk pen bi ne nekkatul deux mois comme Macky Sall six mois la bëgg pour jéem a xañ Ousmane Sonko mu nekk candidat ñu def ko six mois donc ñu def loolu le huit mais daal di confirmer les deux cent millions de Mame Mbaye Niang Mame ñu ne ko yow muy laaj xaalis loolu xam nañ ne xaalis intéressé wu la dañ laa yónni marionnette nga pour Ousmane Sonko bu nekk candidat léegi loolu bi mu amee. avocat wu président Ousmane Sonko dañoo def pourvoi en cassation devant la cour suprême pourvoi en cassation devant la cour suprême boobu nag ma leen di wax Macky Sall xool leen temps bi mu amoon 8 mai laa wax avocat yi def pourvoi le 12 mai au plus tard le 12 juillet ñu produit seen mémoire parce que deux mois la leen yoon may juillet juillet août. septembre octobre novembre décembre janvier sept mois Macky Sall enrôlé wul dossier boobu léegi yéen du ngeen posé seen bopp benn question ñu waxtaan ma déglu sax lan ngeen lan ngeen di bind nañu ñi répondre si live bi lan nañ gis ne moo tax Macky Sall nanguwul enrôlé dossier boobu noonu loolu moo gën a yomb ay contumace ngay dem si fay di la duma euh, Ziguinchor nga ñëw Dakar Ousmane Racine Thion di la duma. nga nekk la rise du monde di di barricade ay DGE di barricade ay CDC ñi doon barricade ñu leen di mujj barricade mais ridiculisation boobu noonu jaru ko fi woon ridiculisation boobu noonu jaru ko fi woon lan moo tax Macky Sall kon jërul dossier boobu nga xam moo gënoon a simple laaj naa leen question boobu la réponse est simple Ousmane Sonko dossier Mame Mbaye Niang bi kenn mënu ko ci teree bokk pour des raisons simples suñuy avocat dafa am ligne de défense bu ñu jël maanaam yoon boo xam ne ci nañuy défendre Ousmane Sonko ci kanamu cour suprême parce que boo saisiree cour suprême ci pourvoi en cassation da ngay ay moyens lu ñuy wax ay moyens de cassation yoon yoo xam da nga jàpp ne cour suprême ci la war a basé wu pour casser décision bi ngay bi ngay attaqué ci biir moyens yooyu nga soulever ay branches maanaam ay ay xaaj ay wàll wala ay banqaas déglu bu baax li may wax nii c'est important ci yoon booy def défense maanaam booy aar sa bopp da nga am ñetti moyen de défense dafa am fin de non recevoir am exception am défense au fond gis naa ko bind <laughs> le dossier est vide oui le dossier est vide mais c'est question de procédure c'est pas une question de fond mais c'est question de procédure li jiitu mooy fin de non recevoir mooy bu ñu lay topp ci yoon nga ne yow mi may topp man duma fi nekk naan li nga may toppee am na wala amut yow si boppam li ngay àtte kenn waru ci wax avocat président Ousmane Sonko yi bi ñu saisiré tribunal d'instance bu Ziguinchor ak bu dakaar yépp ci affaire inéligibilité lan la avocat état du Sénégal tàmbalee mooy irrecevabilité mooy Sonko bi nga waree saisir justice cinq jours nañ la mayoon te yëgaloon nañ la ko cinq jours yi loolu mooy fin de non recevoir man ma am sama soxna ñi war a ñi am ay jafe-jafe papaam ñëw di def demande en divorce su saisiree justice dañ koy naan irrecevabilité parce que dafa am défaut de qualité amul qualité pour mën a dugg ci mbir mi ñaari nit yu seq benn contrat yow amuloo benn intérêt à agir nga demander ñu annuler contrat bi wala ñu suspendre contrat bi loolu yépp yoon dalay naan amuloo intérêt à agir donc fin de non-recevoir c'est un moyen de défense deuxième moyen de défense c'est les exceptions mooy au lieu que nga dugg ci fond mbir mi aussi nga ne leen nga nga nga nga yëkkati ay mbir yoo xam ne day tax moom mu daanu te doo dugg ci fond mbir mi exception ay galgal la mën nañ la saisir nga nga ne exception de nullité nga ne procédure bi ni nga ko jaarale dafa nul parce que dafa am fa la yoon wax fi nga waroon jaar jaaroo fa kon dañuy annuler procédure bi mën nañ la saisir ci yoon nekkoo fi naan def naa defuma nga def exception d'illégalité nga ne mais nañ te dëgg loi bi nga bëgg a basé wu pour ñu tëj ma ci loi bi existé na te man mun naa am sax violé naa bi mais loi bi ci boppam wala boog décret bi ci boppam légalut bu dee un acte administratif le décret wala arrêté donc gars yi exception yooyu noonu nag ci la avocat yi tàmbali def état du Sénégal loo xam ne tamit dina duggati ci histoire moo tax Maître Ciré Clédor doon wax galgal mais lii ñëw gën a métti lii moom du galgal lii padd la lii moom padd la waaw padd bi koo def Diène Kaïré padd boobu la quoi padd la donc exception yi si lañ taxaw avant ñuy dugg ci défense au fond maanaam nag wax ci mbir mi est-ce que formation am na wala amut avocat wu état du Sénégal dañoo yu Ousmane Sonko du moins baal ma avocat yu président Ousmane Sonko dañoo soulever lu ñuy wax l'exception d'inconstitutionnalité jàpp leen ko bu baax exception d'inconstitutionnalité mooy article deux cent soixante bii wax ci diffamation ci code pénal bi ngeen bëgg cee basé wu ne Ousmane Sonko da ngeen koy condamné waat yéen waa cour suprême da ngeen di confirmer décision bi article boobu ci boppam dafa dafa méngoowul ak constitution bi mooy exception d'inconstitutionnalité donc c'est inconstitutionnel exception d'inconstitutionnalité kon gars yi nekkul leneen lu dul ñi lay topp ci yoon ci benn loi nga ne loi boobu noonu ngeen bëgg ma daanee loi bi ci boppam respecté wul constitution parce que constitution bi mooy ndey ji charte maanaam moo jiitu ci loi loi buy ñëw da war a respecté da war a méngoo constitution bi soo méngoowul ak constitution bi rek dañ koo war a dindi wala boo kenn mënu cee daan nit parce que constitution bi nag mooy mooy ndey ji charte yi loolu mooy li avocat yi soulever li tax may taxaw ci exception boobu noonu mooy dès lors que soulever nañ ko mbir mi kenn mënatu ko àtte le 4 janvier xam nga lu tax conseil constitutionnel dafa am une compétence exclusive en matière de contrôle de constitutionnalité des lois conseil constitutionnel moom kese moo am compétence pour buñ nee loi bi méngoowul ak constitution bi mu wax ne loi boobu noonu méngoo naa constitution oui ou no kon képp ku soulever exception d'inconstitutionnalité ci kanamu cour d'appel ak cour suprême cour d'appel ak cour suprême mënatuñ àtte mbir mi dañuy kay jox conseil constitutionnel conseil constitutionnel àtte loi boobu noonu ñuy attaque est-ce que c'est inconstitutionnel oui ou no dama leen di liiral disposition article 22 bi nga xam ne mooy loi organique bu conseil constitutionnel c'est la loi 2016 23 du 14 juillet 2016 mooy wax ni je vous lis la loi ensuite ma expliquer leen daf ni lorsque la solution d'un litige porté devant la cour d'appel et la cour suprême est subordonnée à l'appréciation de la conformité des dispositions d'une loi ou des stipulations d'un accord international à la Constitution. La juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et sur soi à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé. Article 22 bu loi organique bu Conseil constitutionnel nee na avocat wu président Ousmane Sonko yi li ñu cour suprême ne ko ñun balaa ñuy àtte mbir mi sax article 260 bi wax ci diffamation dafa méngoowul ak constitution bi article 22 boobu nee na yow cour suprême obligatoirement da nga war a arrêté mbir mi nga nga jox ma dossier bi man ma wax est-ce que article 260 bi tere bi wax Ousmane Sonko da ngaa sosal Mame Mbaye est-ce que méngoo naa constitution bi ou non loolu lañu wax damay liraat la juridiction saisi obligatoirement saisit obligatoirement su live bi jeexee dinaa def capture d'écran wu article 22 bu loi organique bu conseil constitutionnel ngeen tasaare ko yéen ñëpp ngeen ngeen ngeen jàpp ci ngeen partagé ko vous êtes 4800 actuellement sur 4835 euh, partagé loolu may wax mooy article 22 bu loi organique bu conseil constitutionnel nee na dañu war a saisir obligatoirement le conseil constitutionnel léegi le 4 janvier bu cour suprême saisir conseil constitutionnel lan mooy am mooy cour suprême dafay surseoir à statuer maanaam dootul àtte ci mbir mi en attendant conseil constitutionnel àtte ba xam article deux cent soixante méngoo na constitution bi oui ou non mu teg ci ne le conseil constitutionnel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine mu ne conseil constitutionnel bii ñu saisir nag am na un mois am na un mois pour àtte gars yi le 4 janvier bu ñu soulever exception d'inconstitutionnalité se soulever nañ ko ba pare avocat yi cour suprême il est obligé mu arrêter mbir mi saisir cour suprême euh, conseil constitutionnel te bu ko saisiree conseil constitutionnel le 4 février lay àtte mbir mi 4 février lay àtte mbir mi fekk na. lan la article vingt neuf bu constitution bi wax nee na dossier de candidature yi kan mooy candidat ku dul candidat list bi conseil constitutionnel mu ngi koy mu ngi koy arrêté au plus tard le 20 janvier maanaam cinq jours avant le scrutin boobu fekk na Ousmane ko nekk na candidat ba commencé pré campagne am def ay meeting fii def meeting fële ñu accueillir ko ñun Grand Yoff mu ñëw defal ñu suñu meeting. loolu mooy li am loi bi teg ci ne. si le Conseil constitutionnel estime que la disposition dont il a été saisi n'est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application. nee na nag Conseil constitutionnel su demee ba gis ne lii ñu saisiré ma ne disposition bii dafa inconstitutionnel loi boobu kenn du ko appliqué kenn dootul daan président Ousmane Sonko. dinaa ñëw nag ci lan moo tax article 260 avocat yi ne c'est inconstitutionnel mais li ma njëkk a wax mooy procédure bi kon yéen ñëpp na ngeen ko bind da ngeen na ngeen ko wax fépp le 4 janvier 2024 cour suprême mënta àtte Ousmane Sonko le 4 janvier 2024 cour suprême dès lors que avocat yi saisir nañ ko par une exception d'inconstitutionnalité dafay jël dossier bi mu dal di def renvoi préjudiciel maanaam mu saisir conseil constitutionnel obligatoirement la loi bi wax nekkul nag loi organique bu conseil constitutionnel kasee ko wax. loi organique bu cour suprême ci boppam moom cour suprême loi bi ko tënk bii tax magistrat yi mën a atte mun ñëw atte ñu nangul leen ko ñu naan kii conseiller la kii président de chambre la loi boobu noonu ci boppam article 91 moo ne lorsque la solution d'un litige porté devant la cour suprême est subordonnée à l'appréciation de la conformité d'une disposition d'une loi ou des stipulations d'un accord international à la constitution le la Cour suprême saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé mu teg ci ne si le Conseil constitutionnel estime que la disposition dont il a été saisi n'est pas conforme à la Constitution il ne peut plus en être fait application lii mooy reproduction littérale bu li ma li liiraloon sànq muy article 22 kon Cour suprême moo ko wax ne obligatoirement le 4 janvier mënta àtte mbir mi mënu ko vider parce que benn condition nañ ko wax ce lorsque la solution du litige en dépend maanaam bu fekkee solution mbir mi ci la àtte ci la dépendre mais effectivement Ousmane Sonko diffamation nañ koy toppee te délit boobu la avocat yi wax ni dafa inconstitutionnel diffamation boobu noonu ñu créé contre un membre du gouvernement dafa inconstitutionnel kon na ñëpp xam ni le 4 janvier la Cour suprême ne peut pas vider l'affaire Ousmane Sonko, Mambay la Cour suprême est obligée de saisir le Conseil constitutionnel qui va statuer sur l'exception soulevée dans un délai d'un mois. fekk Fait que nous sommes candidats pour commencer à faire une pré-campagne. C'est ce que je dire. C'est la procédure. ci tegu nag mooy le fond. maanaam lan moo tax avocat yi ne article 260 dafa in dafa anticonstitutionnel wala dafa inconstitutionnel méngoowul ak constitution bi bu ngeen demee code pénal bi réprimer diffamation dafa indi quatre formes de diffamation selon kan nga def diffamation bi selon victime bi dafa am diffamation envers les particulier nit ñi nit ñi lambda yi ñun ñi nga def diffamation am diffamation envers les cours et tribunaux l'armée et les administrations publique am diffamation envers un groupe de personnes boo xam ne parce que seen origine wala seen race wala seen religion nga leen defal diffamation am diffamation contre les membres du gouvernement léegi nag article boobu nag dama koy liir ngeen xam la moo tax avocat yi ne loolu méngoowul ak constitution bi bu ngeen demee euh, le code euh, le code pénal il est il est là donc euh, pour vérifier leen ne ma maa moom laay lire Donc l'article 258 du Code pénal nous dit l'article 260 du Code pénal nga xam ne mooy wax ci diffamation envers les membres du gouvernement moo ne sera puni de la même peine c'est-à-dire quatre mois la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du gouvernement un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article suivant. Mame Mbaye Niang bi ñuy wax ne Ousmane Sonko da koo muy porter plainte fekk na mu ngi nekk ministre du tourisme donc c'est un membre du gouvernement léegi nag yéen dañuy dem xooli constitution bi lan la wax article huit bu constitution bi bu Sénégal moo wax ngeen baal ma ma jël ko sama téléphone juste pour vous expliquer l'article huit de la constitution parce que constitution bi dafa am préambule constitution bi dafa am préambule maanaam euh, muqaddima bi maanaam njël benn constitution bi ensuite mu am le corps de la constitution maanaam jëmm ji dafa am bopp bi am jëmm ji jëmm jeeg bopp bi yëpp nag loi boobu noonu daf ko violé te mooy la loi 65 60 du 21 juillet 1965 parce que loi bi dafa yàgg moo tax dinaa leen wax lan la article 8 bu constitution bi wax dama koy lire parce que pour mu gën a leer ñun ñépp ñu ànd article 8 bu constitution bi moo ne la République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux, ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment les libertés civiles et politiques, deux points, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et la liberté de la presse. nit mënta nekk citoyen ci biir réew constitution bi nga xam ne moo jiitu ci chart yi garantir ko liberté d'expression nga ne koy liberté d'expression boobu mën nga ko exercer contre citoyen bu nekk mais bu dee un membre du gouvernement la mënoo wax sa xalaat te muy gérer les deniers publics loolu la constitution bi loolu la njëkk a violé constitution bi nag dafa adhéré ci ay instruments wala ay engagement internationaux maanaam ay mbir yoo xam ne Sénégal da ko xaatim ak yeneen réew te loolu Sénégal incorporé ko ci constitution am ci préambule bi wax ne affirmé ne dafa adhéré ci disposition yooyu instrument yu Nations Unies yëpp Sénégal da cee adhéré te loolu ci constitution bi la bokk te yooyu ñoo supérieur loi bi article deux cent soixante bi nga xam ne moo naan Ousmane Sonko yow munoo wax sa xalaat ci réew mi parce que Mame Mbaye Niang ministre la munoo ko indexé ci gestion ci Prodac avocat yi ni leen lii dafa anticonstitutionnel dafa anti dafa dafa dafa inconstitutionnel kon na ngeen dem saisir conseil constitutionnel mbir bi balaa ñu koy àtte te loolu la yoon wax ma ñëwaat ci article dix de la déclaration universelle des droits de l'homme nga xam ne constitution bi da moo wax ne tout tout individu a droit à la liberté d'opinion d'expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété gis nga ce qui le droit de ne pas être pour ses opinions et celui de de chercher de recevoir et de répandre sans considération de frontières des informations et des idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc lii c'est la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ñu dugal ko suñu constitution yamuñu foofu l'article 19-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose article 19-2 bu pacte boobu nga xam ne Sénégal da koo signé daf ne toute personne a droit à la liberté d'expression Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontières, sans aucune, euh, sous aucune forme orale écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix. Donc, nit ku nekk am na droit wax xalaatam ci réew mi mënoo ko wax parce que diw membre gouvernement bi la waroo wax xalaatam loolu ay loi wu 1965 la yoo xam ne Senghor moo ko fi dugaloon ci code bi diggante bi constitution bu Sénégal évolué na ma teg ci article 9 tiré 2 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 mu wax ne toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements donc la catégorisation par l' article deux cent soixante naan la membre gouvernement moom waroo leen wax sa xalaat boo ko waxee rek ñu jàpp pour diffamation loolu dafay violer la constitution. ba tegaat ci ne dafa am lu ñuy wax la commission africaine des droits de l'homme bu 24 novembre 2010 dañoo dajaloo le 24 novembre 2010 ñu ne dans leur paragraphe 1 de la résolution 169 ñu ne dañu war a abroger. toutes les dispositions ou toutes les lois pénalisant la diffamation en Afrique en Afrique commission africaine des droits de l'homme nee na képp kuy citoyen buy wax sa xalaat ci réew mi képp kuy citoyen bu gis sa membre gouvernement ni muy doxalee nga ne d'accord ci nga koy indexé ci sa gestion loi yi lay tere pour nga wax ko boo ko waxee ñu ne da ngaa sos jàppale tëj ci kaso bi loolu dafa inconstitutionnel dañ ko war a dindi te loolu Sénégal dugal ko ci constitution lii la avocat yi démontré à travers l'exception d'inconstitutionnalité et mu nekk loo xam ne mooy obligé la Cour suprême incha allah le 4 janvier mu daal di surseoir à statuer mu arrêté euh, mbir mi daal di def renvoi préjudiciel maanaam mu saisir le conseil constitutionnel pour mu àtte mbir mi balaa conseil constitutionnel di àtte Ousmane Sonko nekk na candidat lii mooy l'exception d'inconstitutionnalité kenn mun te vider affaire Ousmane Sonko le 4 janvier te bu ñu demee ci conseil constitutionnel bu ñu fa waxee yoon sax li ñuy wax mooy Ousmane Sonko candidat maanaam kenn mënul ko condamné ci diffamation bi kenn mënu ko appliquer parce que dafa méngoowul ak constitution bi loolu mooy li jiitu euh, li ci tegu nag mooy euh, dossier bi dans le fond parce que du ma dugg ci moyens yi avocat yëpp développé mooy même bu jugee waatee conseil constitutionnel du got ci ñëwaat cour suprême nga xam ne boobu fekk na élection présidentielle jàll na ba Ousmane Sonko def benn mandat ba nekk ci ñaareelu mandat am parce que bu nekkee président sax am na immunité mais xëy na bu defee deux mandats am ba nekkatul président <laughs> su boobaa buñ ko woowee bu ñëwee ci cour suprême kenn mënu ko condamné dañuy kase décision bi décision bi dañ ko war a casser gars yi Ousmane Sonko deful lii tax ñu koy condamné bu leen kenn sonal ci buñ ko condamné du nekk candidat deful luñ koy condamné. dafa am ñaar yu may dugg mooy ci procédure bi dafa am lu ñuy wax euh, les droits de la défense mooy nit bu ñu lay topp ci yoon dañ la war a jox ay ak ak ay yelleef yoo xam da nga war a défendre sa bopp e constitution bu Sénégal mooy ne les droits de la défense sont absolus maanaam kenn munu ko kenn munu ci déroger amul benn loi bu mun a ñëw restreindre ko amul benn juge bu ñëw restreindre ko amul administration bu war a restreindre léegi Ousmane Sonko il était défenseur c'est-à-dire moom nañ doon topp c'était lui le prévenu en première instance ñu ngi àtte Ousmane Sonko le 30 mars le 30 mars nañu àtte Ousmane Sonko bi ñu ko àttewee d'accordu ci am na droit def appel ba le ba le 29 avril parce que 30 jours la am te loolu mooy article 485 bu code de procédure pénale am na un mois pour def appel le 17 avril ñu ne dañuy enrôler affaire bi pour àtte ko le 17 avril avant l'expiration des délais d'appel ci jamono ji nga xam ne parquet def na appel Mame Mbaye am na def na appel mais Ousmane Sonko rek amul droit def appel loolu bu ngeen fàttalikoo moom la le secretaire général frère Bassirou Diomaye Faye bindoon ci page am dénoncé ko tuddee ko la clochardisation de la justice ci loolu nañ ko yóbbuwee kaso ba léegi la doon dénoncé te loolu c'est un vice de procédure parce que l'appel est dévolutif nit ki acte d'appel bi nga def li li nga li ngay conteste ji décision bi loolu rek nañuy àtte mënuñu ne may nañ benn parti mu def appel te yow ñu may la ko yoon enrôlé mbir mi avant yow say délai di weesu d'autant plus que l'article 488 bu code de procédure pénale gars yi moo ne su ngeen su juree kenn ci parti yi def na appel keneen ki am na dele supplémentaire de cinq jours donc Ousmane Sonko ba le mais amoon na droit sax def appel ñu enrôler mbir mi taf tafee ko parce que Macky Sall moo bëgg a teel a pare ci dossier bi taf tafee boobu nag olof li muy wax ne yàkkamte gaawtu gaawtu buñ juree doom rëccu lay lay lay lay lay tudd donc kon dossier boobu noonu mun a tere Ousmane Sonko mu bokk parce que l'affaire a été viciée lu ko visier lan la mooy yàkkamti bi ñu enrôlé mbir mi beneen bi mooy dafa am ay instruments internationaux yoo xam ne Sénégal da ko ratifié muy euh, charte africaine des de l'homme et des peuples wax naa ko fi ak pacte international relatif aux droits civils et politiques ñaari loi yooyu yëpp dañu imposer état yi ne képp ku ñuy àtte da nga am droit à une à un juge impartial maanaam juge boo xam ne féetewul fenn impartialité nag ñaar la dafa am l'impartialité subjective am l'impartialité objective impartialité subjective mooy ki lay àtte warul am préjugé ci yow warul jàpp ne dangaa def warul far fenn mais impartialité objective moo ëpp njëriñ mooy ki lay àtte warul am préjugement préjugement bokkul ak préjugé préjugement mooy mbir mi waru ko woon mës a àtte ba pare ñëwaat di ko àtte en appel wala moom moo la topp en tant que procureur après mu ñëwaat di la àttewaat en première instance wala en appel léegi dafa am ku ñuy wax Elisabeth gay Meng Elisabeth Guèye Meng moom substitut wu amadi Diouf la woon ci parquet bu tribunal de grande instance bu Dakar Elisabeth Guèye Meng boobu noonu nag le parke et indivisible mooy parquet bi benn la kon bokk na suñu topp Ousmane ko le parquet est indivisible. moom ba ñuy àtte mbir mi en appel moom ci composition wu cour d'appel la bokkoon mooy moom la woon Ousmane Gueye ak Mamadou Cissé Fall loolu dafay violer le principe d'impartialité parce que moom mi topp Ousmane Sonko jàpp ne Ousmane Sonko dafa sosal Mame Mbaye Niang dafa saaga Mame Mbaye Niang Ousmane dafa def faux usage de faux mënta ñëwaat di ko àttewaat en appel parce que am na religion am ci mbir mi ba pare maanaam am na ci ay conviction am am na ci gis-gisam am na ci gëm-gëmam loolu dafay violer li ñuy wax l'impartialité du juge loolu nag ku bëgg a xam ba xam am na wala amul dangay dem lire article 14 tiré 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques wala l'article 7 tiré 1 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples kon lii lenn la ci avocat yi lu ñu développé ci kanamu cour suprême te muy obligé ne cour suprême du àtte mbir mi le 4 da koy jox conseil constitutionnel pour mu wax ba xam article 260 bi ñu war a condamné wi Ousmane Sonko base fondement bi est-ce que c'est constitutionnel oui ou non te loolu balaa ñu koy def fekk na Ousmane Sonko nekk na candidat ba commencé def ay meeting am mais pire encore bu ñu demoon ba koy àtte sax dañuy kase décision bi parce que Ousmane Sonko dañoo viole ses droits de la defence mais aussi ñi ko àtte woon en appel composition bi dafa irrégulière parce que am na ku ci bokk koo xam ne bokkoon na si ñu ko topp ba pare ñëwaat di ko àttewaat loolu mënta nekk. ma daaneel nag ci lan mooy kon responsabilité conseil constitutionnel le conseil constitutionnel a une responsabilité historique parce que d'abord wax naa ne moom lay am loi organique loi organique mooy loi bi gën a kawe après loi constitutionnelle bi ko tënk moo ne cour suprême mii ñi war fa àtte benn mbir am kenn ci parti yi muy Ousmane Sonko ak am ne liñ may àttee dafa méngoowul ak constitution bi conseil constitutionnel moo war a garantir le respect de la constitution loolu mooy charte loolu mooy mbir mi kon moom moo war a déclarer la article deux cent soixante anticonstitutionnel su ko defee kenn dootul mën a condamner Ousmane Sonko pour diffamation balaa ñuy wax ay waxi kon inéligibilité loolu mooy lii jiitu beneen responsabilité mooy dafa war a protéger lu ñuy wax les droits fondamentaux te daf ci am liberté boo xam ne liberté bu sacré la mooy la liberté de candidature bu ngeen demee ci préambule bi maanaam ci muqaddima wu constitution Sénégal dafay wax ni l'accès de tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux moom moo war a fexe ba loolu ñu bind ci constitution bi moom conseil constitutionnel mu garantir ko li ci tegu mooy li jëm ci dossier wu contumace bi nga xam ne la contumace a été anéantie en toutes ses dispositions moo am nag ay administration yu toog Sénégal muy CDC muy ministère de l'intérieur à travers DG e ak DAF ay commissaire de police ne duñ ko exécuter ne duñu jox Ousmane Sonko fiche de parrainage parrainage yamuñ ci ne duñu intégrer réintégrer Ousmane Sonko ci liste yi waa léegi est-ce que administration mun na la bañal kayit boo xam ne am nga ci droit te këyit boobu boo war bokk ci sa dossier de candidature nga ñëw ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne la man sama yoon nekku ci conseil constitutionnel bu defee loolu mooy dafa violer sa propre jurisprudence maanaam li mu yàgg atte mais su defee loolu mooy ubbi na beneen jurisprudence boo xam ne désormais Sénégal képp ku nekk président ku la neex mooy bokk ci élection yi te soxla woo yëkkati ay procédures judiciaires soxla woo dissoudre ay parti politique li ngay def dafa simple bàyyil ba ñuy joxe dossier de candidature yi ku dem pour lijjanti casier judiciaire nga wax waa parquet ne bu ñu bu procureur signé pour mu am casier judiciaire ku dem pour CDC euh, pour jot ci quittance bu déposé xaalis nga ne ko duma la jox quittance wala duma la jox attestation buy confirmer quittance bi loolu conseil constitutionnel mënu ko seetaan parce que bu ëllëgee mu loolu mooy on a enterré définitivement la démocratie sénégalaise dafa am jurisprudence Insa Sangaré Insa Sangaré moom moo nekkoon mandataire list rassemblement pour le progrès la justice et le socialisme liste la woon boo xam ne élection législative yu 1998 dafa participer woon lan la Essa Sangaré def Essa Sangaré dafa dem déposer caution wu trent 33 millions caution caution wu 3 millions trésorier général bi nga xam ne moo waroon a jël caution bi nekku fa woon amul permanence ba tax na récépissé bi confirmé ne moom déposé na caution bi récépissé boobu noonu jotu ci te récépissé boobu dafa waroon bokk ci dossier de candidature am bi mu ñëwee ministère de l' intérieur comme ñoom ñooy recevoir candidature yi pour élection législative ñu daal ne sa candidature est irrecevable parce que récépissé bi nekku ci mu daal di def recours devant le conseil constitutionnel conseil constitutionnel daal di constaté ne kii de amul récépissé waaye moom gis na ne Insa Sangaré indi na preuve. que cautionnement am disponible na maanaam fas yéene na tayle trois millions mu constaté ne waa trésorier gen waa trésor général trésorier bi deful woon permanence maanaam fexe ba toog fa tous les jours bu ngeen xoolee tey conseil constitutionnel fii ba le 26 décembre di huit heures de huit heures à 17 heures dañuy am permanence pour ku ñëw déposer dossier de candidature te dernier jour bi dañ fay toog ba minuit léegi nag ñoom ñu ne defuñu woon permanence dem tëddi nelaw yi mu ne après loolu moo tax ma man caution bi déposé wu ma ko te pourtant maa ngi mu indee firnde ci kanamu conseil constitutionnel conseil dafa gis ne damay dama leen wax loo xam mu ngi ci dossier bi que le candidat ne doit pas être pénalisé par la défaillance de l'administration mu ne yéen administration bi nga xam ne da ngeen défaillant seen défaillance boobu noonu kenn munu cee basé wu nag <laughs> ne ne ne bi kenn du ko jot récépissé léegi fii nag conseil constitutionnel da doon wax la défaillance de l' administration fii yoon fii nag ci kaawu Ousmane Sonko défaillance administration amul de défiance administration moo am du défaillance de défiance maanaam tëkku justice dëkk justice conseil constitutionnel nag mënul ñëw parce que parrainage mooy lan ay député yoo xam ne dañ laa nangoo signal pour nga nekk candidat te le modèle de la fiche et la numéro rek moo ci amul numéro moom c'est pas substantiel candidat bi yaay numéro 23 kii mooy numéro 24 kii mooy numéro 25 Ousmane Sonko bu amul numéro quel est le problème am na 13 députés yu fas yéene ñëw pare na ko déposé na caisse de dépôts et consignation 30 millions ana preuve bi jot na ci quittance parce que quittance moom jot na ci te preuve bi mu fi te lan mooy preuve bi. directeur u CDC munoon nag noppi ne pat mais dafa génn mu ne Ousmane Sonko nekkul ci liste électorale yi kon du ma ko jox quittance dama koy retour chèque am kon nangu na ne mandataire Ousmane Sonko ñëw na déposé 30 millions te déposé na ko te mu ngi quittance ba léegi ay borom quittance bi <laughs> kon conseil constitutionnel mi waxoon lii le 15 avril 1998 Vincent Sankaré mandataire list RPJS gënul nekk sénégalais ay dafe mandateer u président Ousmane Sonko. liste bii ñi si nekkoon te bëggoon a nekk député gënuñu nekk sénégalais président Ousmane Sonko ba ñooñu bu administration defa yiree ci mission am ba fayiree ci mission am ba respecté wul li mu waroon respecté ba joxu leen këyit bi mu leen waroon jox mooy récépissé conseil constitutionnel nangu leen ne yéen ngi ci dëgg ñooñu ñu defal leen ko après usman Sonko ñu ko koy bañal te bi yoon administration fayirul ci mission am de dafa défier justice ne duma ko appliqué conseil constitutionnel moo war a garantir. droit yi ak liberté yi kon gars yi loolu mooy li ma bëggoon a waxtaan ak yéen defaat benn petit récapitulatif mooy dañuy jëm ci élection présidentielle ñun la yàlla baaxe ñu ëpp doole ci réew mi ñun la yàlla def ñu jugee 2017 ci un pour cent 2019 15 pour cent à plus de 45 pour cent ci élection législative yu weesu. ñoom la yàlla def ñoom ñu jugee ci deux millions cinq cent mille voix en deux mille dix ba un million cinq cent mille voix en deux mille vingt deux war a wàcc à moins d' million de voix te ñiy voté bu ñu matee cinq million un million de voix mooy vingt pour cent ñu jug pour éliminer ñu créer ay dossiers judiciaires te ñaar yi la affaire Prodac affaire contumace affaire u contumace sauté na te. tribunal d'instance hors classe bu dakaar leeral na ko li des mooy lan affaire Mame Mbaye Niang kenn mënu ko àtte le 4 janvier parce que avocat wu président Ousmane Sonko yi dañu soulever exception d'inconstitutionnalité mooy délit bi ngeen bëgg a basé wu pour condamner nañu si mooy diffamation envers les membres du gouvernement dafa méngoowul ak constitution bi te dès lors que soulever nañ ko yoon nee na cour suprême dafa war a saisir obligatoirement je dis bien obligatoirement conseil constitutionnel pour mu àtte mbir mi. loolu nag balaa muy am dans un délai de deux mois mooy balaa le 4 février fekk na Ousmane ko nekk na candidat bay wër ci réew mi pour sénégalais yi votel ko ba pare bu ñu duggoon sax ci fond bi dossier bi dañ ko war a kase parce que respecté wuñ droit de la défense mooy mu amoon droit def appel ci trente jours respecté wuñu impartialité du juge parce que ñi ko poursuivroon Elisabeth Gueye ngi bokk ci def cee bokkat bokkaat ñu ko àtte en appel loolu méngoowul ak constitution bi méngoowul ak engagement internationaux yu Sénégal li ci des nag mooy conseil constitutionnel bii di àtte mënta ne article deux cent soixante boobu noonu dafa constitutionnel mënta administration bañ a yoon mu ne administration respecté woo yoon ay la waaye man sama yoon newu ci Ousmane Sonko yoroo dossier yoroo dossier bu mat donc doo nekk candidat loolu mënul ne donc la responsabilité historique du conseil constitutionnel est léegi nag bu lii weesoo ñun ñii ñëpp lan mooy suñuy responsabilité lan lañ war a def gars yi le 30 est une date historique le 30 décembre 2023 est une date historique retenez bien cette date kontaan nañ ci bi ñu ko partagé ci page président Ousmane Sonko communication parti bi tasaare ko yéen ñëpp ngeen tasaare ko fépp restez à l'écoute du partie dinañ leen wax. xam naa nag instant yi curiosité mu ngi rey ñëpp ñëpp a ñëpp ñëpp a bañ ko ba quoi et loolu c'est c'est exceptionnel et incha allah le moment venu dina leen communiquer lan nañ ci war a def te état bu am solo la ci fi ñu jëm ci élection présidentielle yi te Pastef war ko taxaw et ses alliés euh, li ci tegu mooy ñun waa JPS ñu ngi dérouler benn programme parce que dafa am boo xam ne waruñu ko def mooy toog ba campagne ñiy doog a yëngatu mooy le 4 février occupé ngeen terrain bi de façon exceptionnelle durant la période de parrainage continuon cette occupation de terrain moo tax ñu ñu lancé la grande offensive des porte à porte depuis samedi bi passé 16 décembre waa Sicap Liberté génnoon nañ samedi waa Wakaam génnoon nañ dimanche waa Saint-Louis génnoon nañ samedi ak dimanche waa Kaolack génnoon nañ weekend bii nii dinañ ko def Rufisque def ko Mbacké defaat ko Dakar Mermoz Sacré-Cœur def ko Bambey def ko fépp ci Sénégal kon gars yi tàmbali leen liggéey boobu noonu ngeen dem sénégalais yi ci seen biir kër yi ngeen fekk leen fa waxtaan ak ñoom ci enjeu élection yi ñu jëm képp koo xam ne inscrire na te jotagul carte ngeen wax ko mu dem ci sous préfecture mu jëli carte électeur am wax ñi ñu ne fi ñu jëm nañu daas fanaanal que Ousmane Sonko day nekk candidat te kenn mënu ko teree nekk candidat loolu mooy liggéey bi ñuy xaar. section yu Pastef yi nekk ci seeni commune ak coordination yu nekk ci département yi def leen li waa JPS Ziguinchor di def te maa ngi leen di saluer au passage mooy dajale nit ñi ci benn ëtt ci benn penc projeté discours Ousmane Sonko bu ñu paree ñu waxtaan ak nit ñi def leen ay té débat JPS saint ñu ngi ciy waajal ay événement yu am solo té débat yi ñuy def dem ci terrasse yi dem ci bopp koñ yi waxtaan ak nit ñi dajale jeunes yi ñu weccante xalaat dëgg bal bi ci suuf waxtaan ak ñoom ci fi ñu jëm ci enjeu yi. faites ce travail faisons ce travail nañu dem à la rencontre des sénégalais mais erreur bu ngeen war a bañ a def mooy toog rek di commenter ci réseaux sociaux yi Ousmane Sonko day nekk candidat diw nekk candidat avocats yi wax nañ li wax nañ lële te ñoom ñu ngi def seen liggéey mais ñun aussi nañ def suñu liggéey sur le terrain donc bu ñu waree communiquer dañuy communiquer ci médias yi ci réseaux sociaux yi mais en même temps bu ñu waree nekk sur le terrain dañu war a occuper le terrain façon exceptionnelle et vous les périodes de parrainage et nous devons continuer à le faire jusqu'au soir du 25 février 2024 ñu mën a déboulonner sa système jëlee fi nit ki nga xam ne moo gën a dangereux ci histoire politique u Sénégal la parfaite incarnation du système nit bu inféodé nit bi nga xam ne candidat am c'est c'est Amadou Léon Mba celui qui incarne le système le candidat de la soumission le candidat du néocolonialisme Amadou Ba qu'il faut dégager pour dégager ces intérêts étrangers là yi nga xam ne ñoom ñooy spolier les sénégalais de leurs ressources loolu laa bëggoon a waxtaan ak yéen euh, donc la gps est là avec vous avec les porte à porte et les visites de proximité ngeen ñëw ñu liggéey ci à la base pour waxtaan ak les sénégalais et occuper le terrain jusqu'au soir du 25 février 2024 kontaan naa ci déglu bi teewlu bi saa a duré euh, une heure de temps jëm 20 minutes mais je pense que c'était nécessaire pour ñu mun a weccante yéen xalaat. ci fi ñu jëm ak taxawaayu Pastef ak la participation incontestable et inéluctable du président Ousmane Sonko donc bu ko laajaatee dans les prochains jours aussi dinañ gën a def exercice yi pour di mën a yokk euh, sottante xalaat kontaan naa ci yéen jaajëf ñu fanaan jàmm merci.